bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin kon incha allah ñu fas yéene tàmbale njàngum fer ij bi ci njàngale mu tënku nag léegi nag euh, tableau bi ngay gis moom lañuy tàmbale waaye nag dañuy njëkk a benn gis nga fii kii dafa am mas bu tàlli ci kaw trait bi ma def dama ko def kom xaraf bi moo taxaw mas bi dafa am mooy mas bu tàlli ci kaw ñu tuddee ko fatxa am beneen mas bu lunk moom it ci kaw ñu tuddee ko damma damma am beneen masque boo xam ci suuf lay nekk ñu tuddee ko kasra am beneen masse boo xamante ni dafay ron comme ni nga ko gisee ñu tuddee ko sukkoon nag suñu daas bu njëkk tey dañ koy tàmbalee ci masse yi nga xamante ne dañoo tàlle ci kaw kon lii nga gis ni moo tudd a a lii moo tudd ba ta sa sa ja ha ha ay woyof xa xa kon jëlal lii mooy suñu daarsu tey nga jàpp ko bu baax nga bind ko wasallillahuma wasallim ala nabina muhammad